ñoo ngi leen di nuyu téléspectateurs yu leeral TV am mbégte àndaat ak yéen ci seen capsule il fait le buzz comme ni ñu koy defee en semaine bu jot tey nag ñu andi leen ki nga xam ne mooy Aji Kane Diallo xam naa su ma nee Aji Kane Diallo du ngeen xam kañ laay waxal mais borom madame Bonheur moom mooy Adiouza gis nañ nag wayam bu bees bi nga xam ne génne na ko moom mooy cartonné actuellement ñëpp bëgg ko donc ñu gis xale jigéen di nit ci snabé de meme ko góor ñi aussi donc tey Adiouza lañ leen andin fas yéene leen wax ci moom en quelques minutes vu ngeen que ni fan yi moom mooy def buzz. Adji Kane Diallo ñu gën koo xam ci Adiouza nekk doom ci père Ouza Diallo donc ñoom ñaax nag seen diggante mook papaam kenn dootu ko naat tablette gis nañ ni mu mel ak papaam complicité bi nga xam ne moo nekk ci ñoom ñaar Adiouza nag way nekkoon lu mu yàgg bëggoon bi mu am fukki at ak juróom la commencé woon di feeñ ci moom waaye teewul nag ni musu ko yàqal li nga xam ni mooy jàngam ki nga xam ne mooy a papaam daf koy tooñ parfois naan mooy seen intellectuel bu famille ginnaaw bi mu amee bag nag ci atuma 2004 la daal di dem ca Paris di def def foofu ay cours solfège ak cours tamit d'ethnomusicologie mu yàgg fa loolu rêvam dëgg nag mooy nekk comme chanteuse américaine bii di Beyoncé dañ koy gis ci ni nga xamante si ni moom lay euh, boo ko gisee rek dafay am euh, différence ci moom ak artistes yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii parce que au fait du fii rek Sénégal la yam gis nañ vision bi nga xam ni moom euh, Adiouza daal dina koy am ci li nga xam ni mooy musique muy dem ba nekk comme waykatu américaine frère am di Cheikh Lo nag moo ko daal di jàppale ci bari d'ailleurs moo ko yóbbu ci ay milliers ya euh, yu bari bokk na si Méridien Novotel Jësufoyu ak auberge Marie Lucienne foofu sax la daal di gisante ak directeur euh, auberge boobu muy Ousmane Diop moo ko daal di jàppale d'ailleurs mu génnee li nga xam ni mooy son bu njëkk jëm euh, ci lutte contre le sida ci atum 2005 mu daal di xamante ak ki nga xam ni mooy Samba Lawbe Ndiaye bu groupe Misal Samba nag moo ko daal di yóbbu ci milieu yu bari foofu ca Paris milieu musical donc wan ko lu bari foofu la nekk nag ba ci atum 2007 ci atum 2008 nag la di ñibbisi euh, fii ci Sénégal daal di génne nag album moom bu njëkk composé de onze titres macha allah album bi nag daal di koy lancé moom Adiouza ñu ci bari euh, daal ko ci xam album bi nag mi ngi ko euh, duppee woon Madou vraiment ñëpp bëggoon li nga xam ne mooy album bi kii di Ibou Ndour nag moo réalisé boobu album bu Adiouza nekk albumam bu njëkk d'ailleurs sax album boobu moo tax mu daal di nekk révélation femme de l'année ci atum 2008 moom Adiouza donc foofu nag la daal débuté carrière allah donc jusque là euh, kenn dootul na tablette yi mën a wayam ak li nga xam aussi daf koy wane ci musique parfois euh, ci ay interview yu muy faral di am dafay wax que ni bu wayee rek viom lay way wala ñi nga xam te dañ ko jege ay proche loo xam dañ ko dund moom Adiouza moom lay way donc lu mu way rek évidemment lu am la ci ay wayam nag yi ñu gën a ràññee bokk na ci euh, Dadi bokk na itam ci Cey Love Ya Rasoul Ndaanaan Nobel Grand As bus bi Fancy Mala Nopp Samba rek lañ fi daal di joxe Adiouza moo ko daal di way nekk ay way yoo xam ne d'ailleurs ñëpp ñoo ko bëgg 7 à 77 ans nekk way boo xam ne nag daf ko daal di ànd ak papaam ñoom ñaar ñu daal di def duo et macha allah bi mu génnee ñëpp dañu apprécier son bi macha allah donc ñu gis ko aussi bi ñu ko dalalee si ay ci plateau muy wax complicité bi nga xam ne moom moo nekk ci digganteem ak papaam te mën a way aussi gi nga xam ne papaam mën na ko lépp mu ngi ci Adiouza donc c'est pas pour rien tey bu accès fii parce que topp na ndigalu ki nga xam ak topp tamit ndigalu Cheikh Lo di grand frère am bi nga xam ne nag moo ko daal di ay jàngal lu bari ci musique bokk na si ñu ko jàppale. Euh, kooku mooy Adiouza tey nag moom lañu leen andiloon ci il fait le buzz d'accord ngeen ni moom mooy def buzz jamono ji moom Adiouza ak wayam bi nga xam ni mooy madame bonheur ku ci snap euh, jamono ji moom ngay snap donc Adiouza macha allah gis nañ tamit kilib bi ni mu nice ñu gis ci Marichou euh, gis ci aussi neneen ñoo xam ni ràññee nañ leen ci milieu théâtre bi donc Adiouza ñu koy félicité bu baax a baax ci boobu clip ñu leen di jaajëfal yéen ñi nga xam ni yéen safoo leeral TV di leen jox dig daje semaine prochaine incha allah ci beneen numéro il fait le buzz ak beneen gan